yaakaar naa ni dina yomba wax ndax li nga dégg ngóor si ba dégg ci grand bi léegi nga dégg ci baay bi wax ci du jafe. wallaay dëgg eh, te looloo ñu fi bàyyi. waaye nag da nga am ay point yu bëri ñu yu ngeen développé fii. Mhm. ñuy doomi réew mi nag dëkk ci réew mi. wallaay ndax nag lu ñu ñàkk ñàkk jàng tubaab waaye nag yor nañ suñu xel di xalaat. Mhm. li ngi ci abordé yëpp ci sujet yi ma ma noté ci ñett ñeent yoo xamante ni bëgg naa ci wax di dog di ñëw ci lii. aywa bi ci njëkk mooy li ñuy wax ni waa FMI yëkkati nañ ko li toll 166 milliards lebal ko Sénégal. seen domaine la euh, yaakaar naa ni nekk na lu am solo ndax réew moom ak nu xaalis di duggee di ñëw ci réew mi rek. Hmm. war na am solo waaye nag li am solo mooy xaalis boobu nan la ñëwee te bu ñëwee fan la jëm. ma jàpp ne fi réew mi toll. nit ñi am nañu jafe-jafe surtout xëyu ndaw ñi surtout xëyu ndaw ñi dama ci insister. Mm-hmm. tey man mi jóge polle wala man mi jóge njeng jaw wala ma jóge guy mbëtt wala man mi jóge mbaab loor nga xamante ni suñ la tuddalee turu dëkk yooyu dangay ngay sa gémmiñ mm-hmm. ñun li réew mi tar tar tar tar saa bu ñu xëyee rek danañu jéem a dem yokkal ma jaay la ndax lu dul sàcc ak fen ak triande jombuñu koo def ngir lu ñu dunde ak suñu njaboot waaye leneen loo ñu tegal rek danañ ko liggéey waaye yooyu moom jombale nañ ko suñu bopp mais am na ñoo xamante ni tey jii na ñu xëy dem ci marché yi wala ñu rus di xëy di ambulance yi wala ñu xëy di rus yor seen peel ak seen radu suñu la rombee ngay lu sa mbalit wala ngay gas la sa kàmb ñu def ko te lépp gën sàcc ak fen ak triande waaye am na ñoo xamante ni ñi ngi ci réew mii ba jàng jotee ñu jàngaloo ji leen ñu am seen i diplôme tey jii ba nekk ci biir réew mi gisuñu ci leen lu ñu liggéey ñooñu dañ leen a war a bàyyi xel dafa leen ay formation utal leen ay financement comme ñun comme ñoom ñu liggéey su ko defee bu ñu defee jeunesse bi bu ñu amoon ci lu ñu jàpp rek agression bi dana wàññeeku mbëkk bi ñuy wax dana wàññeeku leneen ak leneen dana wàññeeku kon alal jii di dugg ci biir réew mi te FMI di ko fi dugal ak yeneen réew yi su dikkee nañu seet li ëpp priorité ci réew mi ñu dugal ko ca loolu. Hmm. man ci lu cadre boobu rek laay waxee ci wàllu FMI.